bismillaahi rahmaani bi bis la Cheikh Ahmadou di màggal waaju ko màggal màgg jar naa bi bis la maam Ahmadou di màggal waaju ko màggal màgg jar naa ñett ak juróom-ñett la fi sax baani aju ko màggal màgg fii fii diwaani mu dellu waata màggalug Seex Moodu Lo Seex Moodu Lo dagana jar na dajaloo mu dellu waata màggalug Seex Moodu Lo Seex Moodu Lo dagana jar na dajaloo ngir moo demoon lambar na ha ma hay sa andi sëriñ Tuuba caama kësësi yéena ko ki guy bisub talaata namu ca géej ga bañu naa xat ba weer wa del see ca déwén ak bis la sooga seeru ban ba ngir pas baay talaata jey ñetti fan ak juróom ñaar ci weeru sax baan lañu jikki ñoom ñaar laata jay ñetti fan ak juróom ñaar juróom ñaar ci weeru sax baan lañu jikki ñoom ñaar nee na keroog mel na ni dem na aljana bam saafuwanteeg bamba ajoom faju naaj ceex bamba mit mel na ni ñëw na tuuba tuuba ngir mus la toog ak nit ku ñuulut booba keroog la bamba njëkk a gis mi na rijaal wolof bu naa dama na dëkk Sénégal keroog la Bamba njëkk a gis mi na rijaale wolof naa dama na dëkk Sénégal na tomba mat keroog la gis ayuba ci biir géwén mu naa ko ñibil Tuuba Abdul Xadimi am nga nihmal abdo yaay abdu mooy abdu rasulu abdu mu dellu gis njol ma ko seex yaa di xutbu fi diwaani ba mu amee juróomi weer la yónni seex Moodu Lo Dagana lam ko yónni toog na fay weer Bamba xëy yabal mu woo si Sidi Anta Njaay tëfal ko ba mu ñëwee la Sidi Anta gonta seex Moodu Njaay Jóob la defoon absenta bisub dañ tàbbi fii Mbàkke du la muy daw ca géej ga ñetti fan ñoo yóbbu loog Cheikh Modou Ndiaye Diop daana bon jolanta di yëg ca gaali géej ya mel nim janta daana ko boot di xuus ca dex yaak miir ya bam yéeg coloo ca ya ba jàll dunya fekk booba nitu réew ma galwaa daa dugi ba faleeki gabong dey balwaay ñooy xeeti ninki ninki yaag waggu yo ñooy defindaati neen di yàppu nit ña ak timine kurbuya a kurma anaak ak njuma yaag këram yo farsaytaanaak jaaxanke ak julanke ak tàndangle ko ñaaji ak balante ak xaasunke ñu daa dogaan jolonto yoonu baafali te ko dara dara ba fili ñu tabbi gaal gu tudd il di poroke romb fa wil miri naaw um, boloke ñu daal di fekk bamba mbar waleek biri su baraasi wili ak bixtar waleek keroog la jolonto fanaani baafali mook Modou Lo ñu daldi woy limbarun wali ila nabi wajatu hinda baafali hablu bi ma bihi anaara maxfali o fel njolanta nu yoog nu yoog Seex Bamba mel na ni saafu naak yonen ba mu ne xibaar bi duni may ni Cheikh Modou Lo Dagana bég na bay jooy Cheikh Modou Njaay Joob dal di bis jooy Cheikh Bamba daldi di jug longoog njolanta ñu dal di ànd min weer ak janta wa fe la Bamba joxe si doonta lam taalifoon ca yooyaat muy sant walek la lu beñ ba Rasulullah yi toogoon mu barke loo ko duna lay lal ba nga woon gaawaan ba sun mamanta faatoo ñu teg ko ca mu mel ni jant lal ba nga woon gaawaan ba sun mamanta faatoo ñu teg ko ca mu mel ni janta bisu keroog la bamba waaj lil bari tey sëriñ Tuuba woona ahla bari daldi yabal saxanta jaay mu lelu seek daru salaam ngir xaru bis bam ñi biseek ñu teg cay weer bamba daldi woolu Seex Moodu Lo wooy moo ko woolu ne ko gisal capitaine bu tudd turki mooy kilifa capitaine ya am na barke ne ko mu tàggul ma tubaab ya yëpp pil bari wal bahri luy xonq nopp yax bamba jox na ko fa benn jaaro jaarop urus may ko tubaab bay waaru ba ba ñëw te suba mook madam ba di jooy ni duñ ñibbeeti yow Seex Bamba suba ba ñëw ca suba mook madam di jooy ni duñ ñibbeeti yow Seex Bamba keroog la naan keroog la Bamba naan keroog la Bamba naan keroog la naan wut leeni gaal te woo fi Hamdulaay Ndu buur muy seeti gaal keroog la naa Seex Moodu Lo wutal ma paas yow mii ma bëgg a raw nga góoru faas keroog la naa nasaraan ya duñ ma paasal waaja ma yóbbu daaru moo may paasal keroog la naan keroog la naan nasaraan ya duñ ma paasal waaja ma yóbbu daaru moo may paasal gay badar yeeg dina yee may paasal ci daraja ma ka dooma paasal Cheikh Modou Lo daldi janoo capitaine ba ne ko lebal ma paas yóbbul ma Bamba mu ne ko téeméer ak juróom ñeen fukk mooy paas li fekk Ndakaaru bul ma fëgg mu ne ko téeméer ak juróom ñeen fukk mooy paas li fekk Ndakaaru bul ma fëgg capitaine ba laaj fa bamba fukk ak ñaar mu ne ko fiftin te du fa jaar capitaine ba mer bi ca wàllu gaal ba di bëgg a diig ba xóor ca bal baay mu del si tubal bamba naa ko merse waxtu woosoo dem te duñ la forcé mu del si tubal bamba mu del si tuubal Sëriñ Bamba mu del si tuubal Bamba naa ko merse waxtu woo soobe dem te duñ la forcé Bamba ne cas ba jox ko mooduloo ne ko nga toppatoo ko mooni mooni mooni delloo Seex mooduloo dagana daal dina cas ba daf ci jibaat faalewul capitaine ba Cheikh Modou Lo genn xibaar ko kar jaga waaye dab ko jox ko lim banaa ko ñibbi nga daldi ne mes dem xibaar ko ban ba jébbal ko xaalis ba biral ko limbaay mu ne ko dellu laaj ko sàmba giju la mooy kilifa quartier ya ndax mu wubbi la quartier ya wëq daldi ànd sàmba ak Modou Lo ñëw ne naram fa Bamba waay ku nekk giñ fa daam banaa bilaay ku nekk giñ fa daam banaan la mbaama la ka mbaamuy laay Bamba ne leen gaay badar yeeg ginne yi daanañ ma jox hadiyatan min junne yi quartier wëq daldi ànd ak sàmba boole nañuy addiya jébbal bàmba quartier wëq daldi àndak ak sàmbaay boole nañuy addiya jébbal bàmbaay adiyati safat la daa naa kirik il mustafa al maahi bilaa manaa kiri keroog la daan tàngoor ba dellu jaajo di bëgg a ca dex ga ngir faj aajo Cheikh Modou Lo dab mu daldi kaanu wax ko fa loo xam ne mu daldi daanu bisub keroog la Bamba wax Cheikh Modou Lo maami Serigne Khadim Lo wooy waree fu ko nettali gaa yi dajaloog ay bisub keroog la Cheikh Bamba wax Cheikh Modou Lo daganaay waree fu ko nettali gaa yi dajaloo bamba nga naan seex modulo yaa bari al sudul kono yow duñ ma delloo waay Sénégal seex modulo na bamba tuubi ruubi yàlla nag nu delloo Mbàkke ak mbusoobe keroog la seex Ahmadu Lo boot bamba tabal ca gaal ga te fayul ba waare ma fat yére ya ak bagage ya tabal ca gaal ga wir di raw na gaal ya Seex Bamba denkaat Modou baawa ne nga yóbbuloo ko yéene yen ba 15 ba Seex Bamba joxoon Seex Modou Lo moo koy joxob xaalis ba tey ak i daloo bisub keroog bisub keroog bisub keroog lañ tàbbi fii première julli fa ñaaru raka raayo yay leer Seex Bamba duggee fa bisub àllarba xëyee li mbër wëri alag na mbër maay saxaar ga di yendoo daw ba ñëw kal fa alxamis ya noon ya hubbisa bisub keroog la dem ba jànca fa lu ba jox ko fa ñaaru téeméer mu jox capitaine ba foofee la Bamba gisee suuf si beeñ saa ca badaa ñuy tiim di suuf saay dal dina Seex Ahmadu Lo fi la yam suuf saa ngi jooy dootuma wuy nga dem Seex Ahmadu Lo dellooti bis bis yi jooy Bamba ne mes réer Modou Lo yooy sax nañ faal xamis ja bal xamis ja dellu si dellu ngir meles ja sax nañ fa alxamis ja ba alxamis ja dellu si dellu seeti ngir meles jaay dina bu si amaduloo gaaya ja takkusaan mu na jalax fa taax ya Cheikh Modou Lo dellooti daw boot Bamba tabal ca gaal ga ni bagaasug Damba bisub keroog la gaal ga dal diqi jëm si ndakaaru gaa buur ay soqi gaal di daw ci peey ma yaari ay bis keesi gabon kër nam sa kiita di ko bës keroog la taalibe ya jox Seex Bamba ma neesu ko lim yow dey ba keroog la taalibe ya jox Seex Bamba ma neesu ko lim yow dey ba la nga xam ne taalibey ka bong ya fonk màggalam ga naa la xayraat yi bis la Cheikh Ahmadou Lo di waaju ko màggal màgg jar naa yi bis la maami Sëriñ Xaadim Lo bi bis la maami Cheikh Moustapha di màggal waaju ko màggal màgg jar naa màggal ñett ak juróom ñett la fii sax waaju ko màggal màgg fi diwaani li nga bokkoon ca ji sawu sa koor Cheikh Modou Lo soog ma ko joor li nga bokkoon ca ji sawu sa koor Cheikh Mouhamadou soog ma ko joor li leen nga bokkoon ca ci sawu sakkoor Cheikh Modou Lo dagana soo woog ma ko joor Cheikh Bamba lim defar ci géej gi ak jéeri ma ne ko lim moo bëli jaloore ngir Cheikh Bamba defar ci réew me ma ko lim arda yokkal meew meek ngir Cheikh Bamba defar ci réew me ma nee su ko lim arda yokkal meew mee barkeb Cheikh Modou Lo Dagana barkeb Cheikh Modou Lo Dagana barkeb Serigne Khadim Lo